sama ga TV mbokku internet yi ñu ngi fi ci bani premier edition adep machallah ñu taxaw eh, nek ci bergerie bo xam champion bi la nuyo lay wax moy kan. nuy na la. wa maa lay ziare wa senegal eh, Gaal gi TV eh, man la Cheikh Yassilo Diouf dëkk barni daru 1 Don jeune éleveur sama berger di tuddu tudd ya family Yassilo family wa Yassilo moy lan. Yassilo sama ben surnom ben yaasawlu la sama papa da doon bisit mais kon ñaari musa am Tuba bi nak legi yow il faut nga wut surnom boo xamante pour Musa yi adresse baña jaxaso mu Moussa sawlu djouf mais tuba bi bind musa yaslo djouf après mu neex ya-, yaslo bi neex ka mu nañ adapté yaslo bi suñuy dom suñu yëpp Yasloo la ah yaslo lay dugg bo rek suñu membre de famille genn allah. Euh, faute de frappe waaw faute de phrase moo ko andi aussi mu doon lu doy mu doon mu doon lu unique mu doon lu unique ma ne papa pourquoi yes loo mu ne ma non pourquoi ma pourquoi tëgg créer rek man maa créer sama yes loo. macha allah faute de phrase léegi lu parfois lu garaaw lay créer. waaw parfois lu garaaw lay créer waaw. <laughs> fii kay nga nekk càmm euh, man càmm gi maa ngi si defagul deux ans et demi rek. tey mooy sama première sortie. Ah, waaw tey mooy sama première sortie. Euh, maa ngi Bargny Daaru 1 fii dëkk Bargny Daaru 1 si poste courant bi wotatu national bi. tey euh, càmm euh, laadum bi da nga nekkoon di càmm xar wala da nga ko moom nga njëkk def. waaw nekkoon naa nag si tulaa biir yi ak si azawat yi. parce que man dama judd fekk sama papa maanaam lépp lu ñuy yar ah jullit war koy yar rek daf koy yar même gazelle yi nekk si àll bi kéwal yow sax daan na yar kër ga. Ah. dafa amoon ay nag yu bëree amoon ay xar. ñu juddu si ñu ñu juddu si pekaaram mooy si si si si jur moo tax def ñu neexoon lool ñu newoon si ay ordinaire jóge si ordinaire dem si la dem si kii càjjee azawat ñëw si laadum mm-hmm. léegi ay ordinaire yooyu azawat yi càjjee da naan yar kër gi wala da nga naan def tabaski waaw dama naan yar kër gi en même temps aussi di defaale tabaski parce que tey laadum fi mu toll nii sama papa ay jamono danaan tuddee ay xaram ay soxnaam ay doomam ay kinne ngóonee

mais en même temps damay opération chaque année damay def opération damay jënd ji bu ay mois trois mois damay jënd ji amélioré bu a après ma génn ma génn jaay ko fan waaw maa ngi takk sama buntu kër rek man moom du dem dara du dem dara damay takk des fois sax client ñoo may fekk biir jënd parce que xam na waaw xam nañ la daal waaw nañ ma ko ba chaque tabaski ñaar ñaar tet ngay def chaque tabaski dan no. xam nga dama ko boolee sama liggéey na temps damay def ay wala dix euh, wala quinze waaw ça dépend rek sama liggéey. nga jënd jaayewaat bu neexul nga yem ma dugal génn bu neexul ma ma yem foofu quoi. tey loo exposé. tey moom maa ngi exposé ñaari giir. muy euh, muy euh, galactique ak euh, magistrat. tey ñii nii ay ay setu ga ay ay ay ay set ñaari setu galactique laa boole. Itoxo ak Moussa. mooy ñaar ñi waaw Itoxo mooy jeune mâle boobu. Moussa moo nekk nii ay triplé nañu woon mais benn bi dafa daanu. ay seex lañu waaw. Ah, ñaar benn bu jigéen ak ñaari góor seen yaay. Ah, soña mooy seen yaay moom. waaw mooy ñebe bi ñebe bi doomu nangoo la doomu nangoo bu ah, nangoo doomu galactique la waaw. Eh, moo jur triplé yi ba pare ñëw seexaat ne waaw. ana ana papay seex yi. papay seex waaw génnul nag dafa amee tànk quoi mu daa génnul. actuellement ni bii mooy quatrième porté lu tuddu mom moy Soña. Soña foo joge Soña tamit ndar la joge euh ci pegaru galactique rek mu ngi joge ndar. waaw. ci yow ñaata porteur la ci yow si man ñaar porteur la am moy bi wa triple wa amono ben ben ki fausse couche. euh avorté woon na fi quoi. Soña amee champion la de. champion wa wa Soña mo barkel la. xam nga rek galactique dafa def lo xamante ci élevage tay boo yoree suusam da ngay am fierté pour pour pour kii si pour liggéey si parce que tey euh, benn tàkkusaan nga baatal si trois records yombul ba pare téye ko pendant quatre ans kon nga xam ne Galactique champion la champion incontournable sam euh, setu Galactique la doomu Galactique direct ka jur waaw bu ñu naan naangoo waaw yeneen ñaar femelle yi kii tey setu Moursin la benn femelle waaw kii kii sëtu kii sëtu Moursin la euh, di doomu Sadio Mané champion bi ñu naan Sadio Mané bi nekk fii doom la xar boo xam bu exceptionnel boo xamante ne lu mu la croisé mu doon woor wallahi champion boo xamante ne tey sama benn waay moo ko yoroon suñu grand Hamza moo ko joxoon mu géré ko géré bu rafet ñu am si ay couragement tey femelle bi man dama ko recruter te si si trois biir yi nga noon wax damaa defar sama kuy ba mu baax ba mu war a jar quatre cent mille ou cinq cent mille ma teg si sama cent mille dem sama benn copain mu waroon a def bactem moom dafa yoroon ni laadum ma ne ko gay ne man dama bëgg a dugg si mbir mi. mu ne boo jëlee bii doo ko réccu te bi ma ko jëlee réccu ma ko parce que ku ne Birahim nga xam ka si si si bopp bu ma xam ko si corne xam ko si doole ak ossature te kii tey boo ko xoolee direct la jël. boo xoolee moom yàgg na ci. waw deux portes deux deux portes la defagul ci man. domi mo nek ni ibu moy mooy ben wa agno waaw moy boobu deuxième porte mo nek ni ci man waaw ta mom dafa yexé porte sax mom deux portes yi la am. ni euh actuellement ben mal buñ ñu xewar buñ ñu xewar bo xamantene mu ngi jóge ci Père Ndaw moko ko Ibrahima Ndaw waaw. si kenn. non añoo yi tëbaguñu. am na xar ñu croisé mais yow génnuñu quoi. ba gars exposition bi rafet na de. waaw exposition bi moom. Euh, kontaan naa si trop si exposition bi parce que daaw dañu defoon lancement des activités. aussi moo doon ma yoroon benn femelle. femelle boobu sax génne naa ko mooy yaay booy Talla Junior. yaay booy Talla Junior parce que kooku tey euh, teranga Pastef moo ko jur. teranga Pastef kaar kaar kaar kar booy Talla. aussi ma bàyyi ko kër ga. ma génn ñii tey parce que soña tey bi mu wàccee rek dama ne il faut ma wàññi ko parce que moom soña laa mën a andi ak njabootam. Ah, nice na. Euh, ndax ma numéro bi adresse bi exposition bi rafet waaw euh, bi nag 77 686 19 12 ñi Daaru 1 si poste courant bi beneen numéro bi di 76 141 21 41 waaw di kontaan si yéen kontaan nag suñu président Badou. Badou moom nit koo xamante ne man du ma taayee di ko gërëm parce que dafa am loo xamante ne dafa ma marqué si moom dafa yor sama jukki papa sama papa juru ko parce que lu baax lu nekk moom da siy rey da siy xar tànk tubéyam pour mu am maanaam lii taxawal ko yombul si une première fois taxawal lii yombul fexe bu mu am kon dañ koy gërëm parce que dafa réaliser sama rêve man dama naan dem si ay foire di di di di di imaginer bés bu mu waree génne samay sujet ah faf ya, euh, suñu président boobu defal ma ko kon tey dama koy gërëm. yow kay ku la xool xam ne da ngaa bég quoi. non dama yow nga ak njaboot gi di dund xa xapi. yow daal li moo la neex ci élevage quoi. non man lii mooy sama mondial. lii géri li ñuy def mondial di rey pour dem. man tey nii euh. maa ngi mondial. bu fi demoon neex parce que neex na bu pare. di gërëm tamit aussi association mooy ADEP. mooy membre du bureau yi. aussi ak euh, membre membre de kii membre ADEP yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant. मला जे कोणतं